jataay bii nag li ko waral mooy ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko nag si du Modou Mountakha tey si bëccëg rek rot jëw jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñ am Amdi Fall moom Serigne du Mbenda muy ndigal loo xam ne xañ na sax mën nañ ni miin nañu ko waaye ah, taxaw woon nañ ko daaw ah, si ndigalu ndigalul Cheikh Modou Mountakha muy bisu Sikurla ah, sëriñ bi wax ne bis boobu yi nga xam ne moom la santaane woon daaw muy ñaar fukki waxtu yeeg ñeent vingt quatre heures yi ñu amoon si foofu si Daaru Minam muy bisub sikkur laa boo xam ne mbooleem kuy tudd yàlla daje woon na fa ak njabootu Seera Faal gépp ak njabootu sëñ Tubaa gi sëriñ bi jot na ndigal si Cheikh Modou Muntaxa ñu taxawaat bis boobu yi alxames yi ji bu dellusee incha allahu muy bisub suba bu nu tëbëskee incha allahu bu dellusee sëriñ bi wax na ne eh, ndigal jot na ndigal si Cheikh Modou Muntaxa ngir nu taxawaat bis boobu yi nga xam ne mooy bisu sikkur laa Euh, foofee sa kër Cheikh Modou Mountakha euh, li nga xam ne moo si yees rek xëy na euh, ngir amut ay soppiku yu bari li si yees rek mooy sëriñ bi dafa wax ne ren dafa bëgg nu tàmbale ko juróom-ñetti waxtu si suba taxawu ko ba juróom-ñetti waxtu si ngoon muy huit si suba ba huit si ngoon kon dafay mel ni ab yendu la moom la sëriñ bi bëgg nu yendu ak moom yendu ak njabootu sëñ Tuubaa gi yendu ak jullit yi ñu yendoo tudd yàlla mu kalimatu laa ilaha mu nu ko taxawoo ba ngoon nu sukk fi kanamam mu ñaanal nu nu dellu toogaat di xaar ndigal Sëriñ Munta Muntaxa nag da saa boole ni ndigal li day cofu ko mu ngi digle fépp foo xamante ni fii àggoon na fa daaw mu ngi sàkku mu weesu ko ren maanaam soppiku ko si waxtu yi tekkiwul ni danoo soppi lenn si taxawaay yi si amoon sëriñ bi nee na nañ ko yaatal bu baax fépp fu tuddkatub yàlla ne képp koo xamante ni kii daal yaa ngi wuyoo maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na mi ngi lay woo alxames si suba ji bu dellusee si pencum daaru minam ñi nga xam ne ñoom la sant ñu taxawu liggéey boobu nan ko defe woon daaw ndigal laa ngi si ñoom dañ koy wéyal muy maam Cheikh Fall moom Chérif Assane Fall si kurulaahu dana jiite liggéey boobu ànd ko ak kuréelu sikar yëpp nga xam ne ñoom lëkkaloo nañ ci genn buum ñu ànd ko bokki taalibe yi su ko defee nanu ko taxawoon daaw kenn ku ne taxawaay ba nga amoon nga fas yéene koo yokk kenn ku ne e, yitte ja nga amoon nga fas yéene koo yokk ba sëñ Tuubaa Cheikh Modou Muntaxa li mu si séentu lépp ak li mu si yaakaar mu am ko na mu ko bëggee loolu mooy ndigal li nga xam ne moo fi léegi sëriñ bi waxoon ma ne ma naa ko yaatal ci bokki taalibe yëpp ñu xamee ko noonu kon bisu sikkurullah bi alxames lay doon muy alxames si suba ji bu dellusee incha allahu juróom-ñetti waxtu si suba muy huit ba juróom-ñetti waxtu si ngoon muy vingt ñu daje sa pencum Daaru Minam biir kër Cheikh Modou Mountakha ñu taxaw baatu tur yàlla woo wii ba mu àgg sëriñ bi teewlul ko boppam ñaanal nu nu delluwaat toogaat di xaar ndigal sëñ bi mi ngi si soññi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi fu nu mën a ne ñoom ñëpp kenn ku si nekk na jottali ndigal li mu yaatu mboolem fu taalibe nekk mboolem ku mën a tudd yàlla ñu dikk akub yar ak teggin akub dal ba nanu ko defoon daaw ñu defee ko nu ko raw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.